politique bi ba ma laajee lu ma ci naqari dinaa ci sawar a wax ndax depuis élection 88 la président Abdou ne woon fii ñuy ànd ak moom di politique Souleymane Ndiaye Brin leader yi bari fii à Thiès moo leen formé ci politique. ñuy dem guddi dem bëccëg ba mu daanoo APR ñëw fii la président Macky ma xool jikkoom mu neex ma xool compétence am xool noppeem xool ak liggéey bi muy def daal ma ni kii daal doy na ma naa ànd ak moom. ba ma àndee ak moom ba tey nag am na leader bu ma daan àndal muy le ministre. Thierno alasan Sall mula la dan andal mu nek ku bax ku tranquille ku jàmbure ku nango liggéey waye la tax ma won ko ginnaw moy duma liggéeyal kuma dul recevoir duma liggéeyal kuma dul gis entourage politique bu Thiès liko yak moy entourage sen entourage yi ñu fiy bàyyi di dem ko soxlo sa ministre bo soxla sa député bo soxla sa directeur doo ko gis nak sen entourage lolou moma nakadi motax bobo batay ma tok tie sama njambur legui na jappale askan wi rek muy gor muy jigen parce que Thiès ku ne xam na ni metti na crise bu metti moo fi nekk ku nekk nag ne mana te ñi naan man a ñëpp moyens yi ñu am ñun ñi nga xamee ne ñoo nekk ci terrain bi suñu woyof ñun ñu woyof mbubb yi suñ ko amoon kon président de la république xolam sedd mais ñoom ñi nga xamee ne ñoom nee nañu ñooma kenn du leen gis kenn du leen dégg wërsëgu leen yàlla jox jàppale wuñ ci jeunes yi jàppale wuñ ci jigéen ñi. leen ko fas yéene jàppale xanaa fa emploi am rek ñu dugal leen ci ak jox leen ay financement te nag toogu woon ci samay moyen bopp ak sama connaissance bopp yoo xamee ni dama doon dem ci ñoom ñu may utal ay poste euh, jigéen ñi def nettoyage ci service yi vraiment ma ciy sant tamit sama càmb yi nga xamee ne ñu ndey bokkuñu baay ñu doon ma ci jàppale di jël jigéen ñi may dem ci banque yi aussi di leen wutal ay financement ñuy fay loolu yëpp ngir ji bëgg nit ki bu lay topp danga koy mënal dara koo mënalul dara mu bàyyi la ci ginnaaw ginnaaw la président Macky Sall ak keneen ku ma tàllal loxo rek pour nous ci développement développement qu'on lan de ci la formation financement Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, chers camarades de la paire, responsables du groupement féminin Population de Thiès, permettez-moi à l'entente de mes propos de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017, qu'elle soit une année de bonheur et de prospérité. Mes remerciements vont à l'endroit de toute l'assistance et mention spéciale à toute la presse qui s'est mobilisée malgré les délais courts. Le jour mercredi 11 janvier 2017 est une date historique pour nous car marquant un tournant très important dans notre carrière personnelle politique. Comme vous le savez, sans nul doute, outre notre credo a toujours été l'émergence humaine, n'est pas bien porté à Thiès, faute de responsables rassembleurs enclins à assurer une victoire écrasante à la paire. Malgré nos efforts pour rassembler la famille présidentielle à caisse, la tâche se complique à cause des leaders aux ambitions personnelles. Des divisions entre responsables qui fragilisent le camp présidentiel face à une opposition presque inexistante à Thiès. À la proximité, les inscriptions des citoyens dans les commissions des cartes d'identité biométriques constituent une priorité pour les membres de notre mouvement qui reste ouvert à tous les citoyens de toutes couches soucieux d'accompagner la politique du chef de l'État. Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous remercie.